tarawlu leen ma dellu marsiyaati baari saahibil aayaati ma jooy sangu mbàkke ak bu soobe ndayoo baay baraw bu soobe way seyxu mbàkke najlu faati balla way jooyle leen ma waaju xam ja way jooyle leen ma sibtu balla isa way ma ni way man jame na loob saab fu may jëleeti géej gu fees guy duusu te dàq suukar dàq lem ñiy buusu fu may jëleeti ku ma waar ci yàlla te di ma dénk di ma naab ci yàlla fu may jëleeti ku ma jox ab dénk bindal ma ay jawaab te dal may dànk déglul ma wax la lëf ci ay jalooreem yoo xam ni tuuti laa ca xam bu leen yéem mbër mu nëbboo nëbbu la jàpp auzu billahi min shaytaan rajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina mawlana muhammadul amin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu seetaan seen site internet bi di 24actu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar fii ci Mbàkke Bawal ci armeli Mbusoobe yi ci bis bu màgg bis bi nga xam ne moom lañ baaxoo defal su maam sëriñ Mbusoobe ci lañ ko daan def saa su nekk buñ gàmmoo bis bu dellusi ko daan defee fii ci Mbàkke Bawol daan ko defee ci jumaay Mbusoobe yi buñ fa yendoo jàngal xuraan ak xasida ak mbokk yëpp dajafe ñu def waxtaanu diine ba noppi buñ noppee àndandoo ñëw fii ci barab bi sëriñ Mbusoobe siyaare sëriñ Mbusoobe ak mbokkam yi fi nekk suñu Maam Mor Jaara ak mboolem mbokk yi fi nekk yëpp dal di ñaanal mbooloo mi yeewu ko ba déwén ren ji nag ku ne xam na ne ci waxtu xat wi mu fekk réew mi fekku ci àdduna bi moo tax ñu jot ndigal ci sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké xalifa li mu yàlla na fi yàgg lool te wér mu jox sëriñ Bousso bi Bousso Bangaaj mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Bousso bi ndigal ak mboolem njabootu sëriñ Bousso bi ak sëriñ saabu so ngir bis bi tey ñu bokk àndandoo ñëw fii ci armée li Bousso bi yi dundal ko fi depuis huit heures ba léegi ñu ngi fiy jàng alxuraan jàng nañ fi ay kaamil yu takko takko lu jiitu lool it mbooleem daara yi nga xam ne nekkoon nañ ci kër gi ca bokk ci njabootu Bousso bi ñu doon jàng alxuraan bari jàng ay xasida def ay salaatu ala nabi ñu noppee sëriñ bi ñaan su ko defee ñu dundale ko bis bi ba noonu lañ ko dundale ndigal loolu sëriñ Muntaxa joxe jox ko sëriñ Bousso bi Bousso mu ànd ci njaboot gi yëpp naka noonu moo tax tey ñu toog fii ci armée Bousso bi ñu ngi xëyee ba léegi nit ñaa ngi mbooloo maa ngi gis ngeen ni ngeen jàng alxuraan ñu ngi ñu ngi def ay salaatu ala nabi ñu ngi loolu it tax na kon ñu jël ay kaddu yu seer yi nag ñu ànd fegook suñu maam Mor Mbacke moom it ku ne xam ko ci yàgg taxawu ci bis bi lu mel ni mu indi benn introduction bu gàtt boo xam ne nag bu noppee ñu jàll ci yeneen mbedd kon sëriñ maam Mor. ñu ngi siyaare euh, mbokki jullit yëpp ak mbokki comme ni ko sëñ Mourtala waxee ñu ngi fii ci Mbacke Bawol tey ji ci fii ñuy woowe armée bu soobee nekk fii ci bis bu màgg boo xam ne bisu màgg la ci lislaam bis bu màgg la ci yoonu murit di bis boo xam ne bisu fàttaliku la ak ñaan. ñaar ci ñoo xam ne ay mbokk lañu woon ci Cheikhul Khadim di ay soppeem di léppam muy bu Bousso mi nga xam ne nijaayam la ak Serigne Saa Bousso euh, maanaam kon ci gàttal mooy maam yi njabootu Bousso bi gépp euh, seeni maam ñoom la ñuy fàttaliku tey muy bis boo xam ne at mu jot dañ ko baaxoo def lépp rek dellu ci lislaam li mu xamaloon euh, jullit ñi ne leen li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne nit ki bu fi jógee ay yiwam dana dog ba mu des ci ñett ñett yooyu mu boole ci mu ba fi doom wala njaboot gu baax ku koy ñaanal kon bis bii ci loolu rek la dugg muy bisub lislaam boo xam ne it eh, jàmbaati lislaam lañ ci fàttaliku ñoo xam ne ci seen jamono marqué woon nañ ko fu ñu tuddee ñi gënoon a jàmbaar ci seen jamono dañ leen di tudd eh, sëñ Bousso bi mi nga xam ne moom lañ nekk fi ci wetu barabam it eh, wàccuwaay bi mu amoon ci Cheikhul Khadim ñëpp xam nañu ko fi mu taxawu ko jaar na ci moom jàngal na ko taxawu ko ci biir ak biti sëriñ bi fonkoon ko lool sopp ko lool bind ay way yu am solo ci moom bokk na ci li gën a seere rek wàccuwaay bi nga xam ne am na ko ci moom sëñ bu soobee mooy fii ñu nekk tey ñu koy armeel bu soobee kër Cheikhul Khadim la woon kër Cheikhul Khadim la woon xam ne bi mu sosee yoonu murid ba nekk fii ci Mbàkke dëkkoon na fi dëkk fi ab diir nekkoon fi ak mbokki taalibe yi daa leen fi yar ci eh, ndigal loolu mu jële woon ci suñu borom ci yar ñi nga xam ne ñoom la jamonoonteel ci ñëkk ci wuy si ñëpp eh, fii nekkoon këram bi sëñ bu soobee jógee Saalum ñëw fi eh, Cheikhul Khadim radiyallahu anhu jox ko fii dem sanc Daaru Salaam kon loolu rek bokk na ci liy gën a wa wane wàccuwaay bu rëy bi nga xam ne sëriñ Bousso bi amoon na ko ci Cheikhul Khadim euh, waaye dañu ci daa taxawu sëriñ bi moom sëriñ Bousso bi bi sëriñ bi jógee fii nekk Daaru Salaam ba ni mu demee Touba ba ni mu demee Mbacke Baar yi nga xam ne ci jamono jooju ci la fi sëriñ euh, ci ay mbi ci biir ak biti euh, sëñ Bousso bi danoon ko jàmbaari lislaam ju mag joo xam ne xam ngeen jihaad jooju imam ma Jaxu ba woote woon ca Saalum sëriñ Bousso bi ñi ci gënoon a fës gën caa ràññeeku ca la bokk ba wax nañ ne sax turu sëriñ Bousso bi woowu ca la ko jëlee fii ñu nekk nag di armée li Mbusoobe yi ñu denc fi ñu bari ci mag ñu baax ñi sëñ Mbusoobe moom moom lañ fi jëkk denc bi mu fi jógee looloo waral fii mujj nekk ay armée sëñ moom sëñ Mamor Jaar borom saam mi bokk ak lépp fii lañ ko denc ñenn ci njabootuk sëriñ bi taalibe mi mag yi mag yi taalibe ñëpp ñu ci bari fii lañ leen denc sëriñ waxoon ci wax yu bari wax ne sax fii ci armée lii de diggante sëñ Mamor Jaara ne diggante sëñ Mamor Jaara ak sëñ Mbusoobe de euh, wax ne diggante sëñ Mamour Diar ak sëñ Bousobé ñi nga xam ne maraake yi nga xam ne ñooy laal ñooy laaj ci biir bàmmeel xamuñu fa loolu di tekki rek ne euh, sëñ bi day bégle ci ne kuñ fi denc incha allah dana dajeeg yërmande suñu borom yërmande jooju nag moom la ci mbokk yi di dàkk ba tax da jamono di xat-xat ñu ne nañ ñëw fii li mun mënta ñàkk ci bis bi mu jàng alxuraan jàng xasida def ay salaatu ala nabi ak ay zikr istixfaar ak yooyu yëpp ñu mën ko def fi ci barab bi ñaan suñ borom jottali yool boobu maam yu baax yëpp ak waajur ya sotti jàmm ci réew mi euh, dàqal ñu jafe-jafe yi ñu nekk yëpp ba tax yitte yu bari nañ ko daa taxawee mënuñu ko def nañ ko daa defee kon sëñ Mourtalla ci gàttal bis bi daal lii rek la muy bisub lislaam la boo xam ne ñëpp ko bokk da dina rek alaqra boobu laa lu gën a jege gën a yeey waaye nag moom bis la boo xam ne ñu ko taxawaloon nit ak fu ñu ko mën a taxawee rek sañ nañ koo taxawee ñu ñaan suñu borom defal ñu toofeex te ñu teewee koy déwén yu bari fii la ndax li ci jiitu mooy kër Cheikhul Khadim la woon kon daara la woon wajaal bu jàkka la woon it wajaal bu yóoti kullaha masajida yaa naafiyat man laa yakunu sajida ak boobee bashir man yakunu sajida eh, loolu mooy bi ci jiitu kon kër yàlla la woon bi ko Cheikhul Khadim di sancit sanc ko woon ngir bay fi sanc ko woon ngir eh, wut fi alal sanc ko woon ngir di fi yarug jur waaye yar taalibe yi ci yoonu lislaam moo taxoon mu sanc fi eh, bi mu fi nekkee ci loolu moom Cheikhul Khadim ba sëñ bu soobee ñëw mu jox ko kër gi dem sañ ci daaru salaam sëñ bu soobee ne fi di fi jaamu yàlla di fi jàngale xam-xam ba jóge fi ñu denc ko fi wax nañ ne fi ñu ko denc soriwut ak fi jàkka ji nekkoon mu wéy kon ci loolu barab bi di barabu euh, bu sell wax nañ ne bi fi sëñ bu soobee jógee sëñ sëñ mag bi dane nañ fa yóbbu sëñ Mor Jaara ndax sëñ bu soobee doon na ma laaj wéttal doo ko wax wax ju jooju ne nañ nañ jéggi nangami xasab te denc ko foofu ca penku ba ne seen diggante nag malaaka yi laaj xamuñu fa kon loolu mooy barabu nangu ñaan la mag ñi noonu lañ ko fonkoon daan fi ñëw ku mel ne maam Cheikh Anta ku mel ne Cheikh Mahamadul Fadil ay bis ju ne ku ci nekk amoon nga bis boo xam ne bis boobu bu ñëwee ñëw siyaare eh, eh, doon barab boo xam ne xam nañ ne lu fi ko moom ñi fiy ñëw ci bopp ñoo ko xamal seen bopp ne lu fi waay ñaan suñu borom nang ko kon barab la boo xam ne it képp ku di war na ko fonk sëñ bi bi mu nekkee njaaram am na fii mag ñi ñoom sëñ Baye Guèye ñoom sëñ Mamour na ci ñoo xam ne ci mag ñi àndoon ak moom ca Mbàkke Kajoor njëkk ja Euh, sëñ bi bi mu leen di indilu sax day wax ne feek ñuy àgg armée li bu bu ñu laal suuf xam ne ñi leen di yenu ku di ku sonn day jox keneen mu aw waaye jëmmi néew bi duñ ko teg suuf ba duñ ko du laal suuf ba ba muy agsi fii loolu di wane ne sëñ bi fonkoon na ko barab la boo xam ne it euh, ñëpp mën nañoo waat ne bu Seex Xaadim doon ñëw tey Mbàkke ñu ne mi ngi fiy ñëw ku fi ñëw fii da ko fekk baa leen la fekk ndax ñi mu gën a sopp ci dëkk bi fi lañ leen indi kon yooyu yëpp yu war a tax la euh, ñu gën a fonk barab bi gën koo waggar gën cee waggar lépp lu fi jaadu rek ñu xam ne fii ab xaaj la rek ci Touba alhamdulilah rabbil alamin léegi sax mi ngi gën a jegeek eh, fii ñuy woowee kër Cheikhul Khadim nga xam ne sëñ Muntaxa ñu koy ñaan mu yàgg fi loolu te wér fii la koy def kon yooyu yëpp di wane na eh, la woon démb rek moo dellu si tey ndax fi sëñ Mat Lamin Jóob Dagana wax ne fii la sëñ Mor Anta Sali dëkkoon it sori wut ñu wax ne fii la bi gane àdduna eh, ci penku fii la tuuti rek kon yooyu yëpp wane ne fii barabu cosaan la boo xam ne ñëpp war nañ ko gën a bàyyi xel war nañ ko gën a fonk képp ku di jullit rawatina nag képp ku di ab taalibe jërëjëf sëñ mbokk yi ñu leen di nuyu bu baax di wax nañu lu ñu xëyee ba léegi ak lu jiitu bis bi ñu ngi fi jàngal ay ay kaamil man ñaar fukki kaamil ak ñaar jàng nañ ko ak ay xasida ak ay salaatu ala nabi kon niñ ko waxee woon ci ndigal li mun Mountakha joxe woon bu ñu xëyee ñu daje ci barab bi jox ko sunu waajuru Serigne Bousso Bousso bi nga xam ne mooy xalif Serigne Bousso bi ak Serigne sa ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ak mboolem njaboot gi yëpp. ñu dajaloo fi jàng alxuraan ba digg bëccëg ñu tëj kaamil yi def xat mi buñ noppee àndandoo dem ci barab ba ziyaare buñ noppee sëriñ bi yëkkati ay kàddu ak ay ndénkaane ak ay soññee ñaanal mbooloo mi ñu yeewikuwaat ba déwén kon loolu ñu maase teewlu déglu sëriñ Fadilou Bousso bi nga xam ne moom mooy jàng xatmu bi bu noppee yeneen kaddu yi ci dolli dolli ko ci bu noppee mbooloo mépp àndandoo dem ci barab ba ziyaare ñu def dekk message bi nga xam ne moom la sëriñ bi jàllale ñu yeewiku beneen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 subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin al-faatiha. sëriñ bi ñu ngi lay nuyu te di la siyaara di la balu àq di di la ndokkeel te di la massawu ci coono yi ci xëy gi nga xëyee fële ca dëkk ba ngir ñëw fekke si ñaan gi nga xam ne ñu ngi koy defal sa maam sëriñ bu soobe di ko defal sëriñ saa bu soo ak mboolem askanu bu soobe yépp di nuyu kilifa yi nga xam ne ñi ngi fi ñëpp ci Cheikh Amadou Fadal mi doon jàng xatmu bi léegi ak sëriñ Abdourahman Ñang ak sëriñ alxaaji Fadilu Buso mi nga xam ne moo jiite mbooloo mi ak ñi fi teew ñëpp sëriñ xaadim ñang mi fi teew léegi ak sëriñ Mahamadou Naar bu di suñu waajur ak sëriñ Omar mi nga xam ne moo jiite woon njàngoom alxuraan mi ak mboolem sunu mbokk yi nga xam ne ñoo dëkk fii ci Mbàkke di am mbégte it ci taxawaayu mu assatu saxaafatul islaamiya lil usratil Mbusoobe muy mbooloo mi nga xam ne ñoo lëkkale mbooleem ku askanoo ci askanu Mbusoobe te at mu jot ñaari weer yu nekk ñu daje ci kër benn doomu sëriñ bu soobee wala doomu sëriñ saabu bu soo ngir jokk ak bokk jàng alquranul karim ñaan ba yeneen ñaari weer bis bii nag nga xam ne muy bisu gàmm bu dellusee niñ ko baaxoo defee tàmbalee ko woon ci sëriñ Abdou Salaam yàlla yokk leeram yaar ci sëriñ Ibrahima yal yàlla yokk leeram ak sunu baay sëriñ Thierno yal na yàlla yokk leeram ñu ngi lay ñaanal yow mi fi nekk sunu borom may la gudd fan ak wér mu doon bis boo xam ne dañ ciy daje ngir jokk ak bokk ak ñaanal bokk yi nga xam ne ñoo jiitu yëpp rawatina ñu tëdd fii di sëriñ bu soobee ak maam seexu ak sëriñ Mamor Jaara ak njaboot gi nekk ci seen ginnaaw ñëpp ak fuñ ñu mën a tëdd sëriñ bi kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati ci turu mu assisa bi sëriñ Alaaji moo yor mooy mooy kilifa gi mooy wax ci seen tur waaye ñun dañuy dagaan ndax daaw bi màggal gi jàllee wax nga ñu wax joo xam ne tey buñ teewee fii danañ ci occasionné ngir tànq ci barke boobu ndax yaa ñu wax nañu sëriñ Touba bi muy joxe saw tur dafa wax ne buñ demee nañ ko tuddee sama nijaay sëriñ bu soobe tey jii nag ñu nekk ci barab bii sëriñ bu soobe nekk nii sëriñ Mamoor Jaara nekk nii te sëriñ bu soobe mu doon koo xam ne sunu borom daf ko ruus ku sunu borom rus nag lépp lu ñu dagaan ci moom ngir moom ñaan googu dina am. koo xam ne sunu borom rus na ko ba natt bu kawe bi nga xam ne moo nu xettali xamal ne sëriñ bi ne ko fii ak mi ngi fi duma ko teg ci kawam ndax rus gi ma ko rus. beneen bi mu doon koo xam ne bu fekkoon ne sëriñ bi dana am royukaay wala ku dellu ci moom sëriñ bu soobee la moom la doon bàyyi xel di ko laaj ay mbir yoo xam ne ngir fas yéene soobu ci yoon wi mu jëm mu doon koo xam ne tamit waxuma la yoonu murit waaye jullit yëpp war nañ ko delloo njukkal ngir bëri na ay mbir yoo xam ne tax nañu jariñu ci sëriñ bi wax dëgg yàlla ci ay taxawaayam la kon suñu nekkee fii euh, site internet bi di ko jël jaadu nañu laabire ci suñu mbokk jullit yi yi nga xam ne teewuñ fi yëpp ñu xam barab bii ne barab la boo xam ne nit du fi ñaan ak ñaan te suñu borom nanguwu ko loolu mooy li kon nag sëriñ bi yow mi ko fi nekkal te sëriñ Touba mi nga xam ne mooy soppeeb sëriñ bu soobee te kenn ku nekk gis na abyaat yi nga xam ne way na ko hada mudaahin musammaahu la maanaa maanaa dafa wax ne sëriñ bu soobee boo bëggee xam kan mooy yónente bi rek moom la ndax dañoo niroo melokaan niñ ko ko tuddee ni la ko niroo kon nag soo teewee fii war nañoo dagaan ci làmmiñu taalibe yëpp ak mbokk yëpp nga ñaan ci darajey sëriñ bu soobee mii darajay Serigne tubaab mi nga xam ne moo joxe woon sa tur wa ne nañ ko tuddee sama nijaay sunu borom faj aajo yi wéral jàngoro yi te musal ñu ci ndog yi ak cat yi ak musiba yépp te képp ku fi teew tamit sunu borom faj sa aajo ak ku yéene woon a teew te teew di ñaan sunu borom mu yàggal la fi te wéral la te te defal ñu tawfeex ñu nit doon ñu doon ay bokk yu yàgg ànd yu yàgg booloo di liggéeyal maam yi sunu borom dimbale nañu kat wax dëgg yàlla te loolu ñu ngi ñi ngi lay dagaan dimbal loolu sax muy askanu Mbusoobe fi mu ne nii rawatina ñun ñi nga xam ne ñoo bokk génération benn lañ ñoo yëkkatee ndoo di déerandoo te loolu it lu mat a sant yàlla la bu baax a baax kon yàlla na ko yàlla saxal te dëgëral ñu ci kon nag ñu ngi soññ suñu bopp it di soññ bokk yëpp ci ñu gën a jàpp ci mbooloo mi gën koo fonk ci lépp loo xam ne moo koy dëgëral moo xam lu ak dox la ak wax ak teewaay rawatina teewaay ci ci ndaje yi surtout bu ñu wootee ay réunion di joxe tamit ci li nga xam ne mooy li koy dëgëral ndax liggéey yaa ngi ci kanam barab baa ngi nii kër gi nga xam ne moo nekk fii ci soow bi wara doon kër sëriñ bu soobee ak daara ñu bëgg su àggee ñuy def see magal gi fii loolu tamit liggéey la boo xam ne mi ngi ci kanam te sëriñ bi mu ngi ci liggéey bi euh, fi ko sëriñ bi bàyyi woon sëriñ Thierno gis ngeen ak àggale na ko ba fii xam naa li ci des moom bareetul ñu sumb yeneen liggéey yàlla na fi yàgg teñ fekk lépp te matal lépp barke borom Tuubaa kon ñu ngi soññ suñ bopp di soññ ñëpp yooyu lañ ne woon danañ ko yëkkati ngir coordination bi nga xam ne ñu ngi koy def ci wàllu liggéey bi wax dëgg yàlla mbooleem daayira sët yi yi nga xam ne ñoo askanoo ci askan wi ñoom ñëpp saa soo leen woowee ci luy jëmmal askan wi ak lu koy boole euh, wax dëgg yàlla ñaga ca am na siyaar bu am solo boo xam ne tamit waa kër sëriñ Seexu defoon nañ ko fii ci barab bi di ñu fonk sëriñ Bousso bi ñoom it ñu ngi leen ciy sant di leen gërëm xëy na keroog dafa tombe ak ay xew-xew ba askan wi ñu bëri teewuñ waaye teewaaleel nañ fi ñëpp te ci sa ndigal lañ ko defoon kon loolu la demee ci ci ñëpp ba ci sëriñ Omar ba ci mboolem njabootu sëriñ Issa Bousso gépp fa groupe bi nga xam ne mooy groupe famille Bousso bi it saxal nañ ci ajuma mu jot ñu jàng ci ñaari kaamil yéene ko sëriñ Bousso bi ak sëriñ Issa Bousso ak njaboot gi jiitu yépp muy suñuy baay ak suñuy maam euh, képp koo xam ne tamit bokkoo ci ñiy jàng kaamil yi soo jokkoo ak ku mel ne sëñ Abdou Lahad maam asta dana la mën a dugal jox la jukki bi ngay jàng te loolu lu am solo la loo xam ne euh, wax dëgg lu sax la ajuma ji jot ñu ngi koy jàng te loolu ay lim la yu am solo bokkut ak ñaar fukki kaamil ak ñeent yi nga xam ne moom lañ jàng fii tey yal yàlla mottali yool bi jotale ko ci kilifa yi barakati xaadim rasul ñu fàttali ne kon tour bii di ñëw incha allah mu ngi war doon le 2 décembre ñu ngi koy defee ci kër njabootuk sëriñ Seex Astawaalo Buso moom sëriñ Buso bi su jegee danañ wax fan lañ koy defee le 2 décembre nee na mesare lañ koy defee kon kon tour bi mesare lay doon incha allah ci njabootuk sëriñ Seex Astawaalo muy waa kër soxna Astawaalo mu sëriñ bu bi incha allah kon ñu ngi yamale suñuy kàddu foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk yi fi daje yëpp ñu ngi leen di nuyu jiital ci nuyoo bi suñu wayjur bàyyi sëriñ bu sabu bu sa mii di ko siyaare bu baax di ko balu ak ci coon yi xam ne toggoo na ko ba teew si jataay bi tey jii mu xat lool te metti lool ndax mag la te wérul waaye kon ñu ngi ko sant baax te di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te wéral ko ba mu àggale ay yéeneem yi mu yéene yëpp barkeb sëñ Tuubaa lépp lu mu yéene yàlla ko yàlla àggale ci dara ko ak moom sant itam mboolem mbokk yi teew yëpp ak mbokk yi nga xam ne bi amoon na yéene teew te teewuñu fi te am na ci ñoo xam ne ñu bëgg nañoo teew te uh, wédade tax wala gàllankoor tax ñu teewu si wuñ fi kon ñëpp ñu ngeen ñaan yàlla saafara leen ku ci amul wédadi ku ci am aj yàlla faj ko ci barkeb Sëñ Tuubaa kon day mel wax ji sant rek lay doon ci mbooloo mi nga xam ne ñu ngi daje di daje ngir yàlla ak jëmmi Sëriñ Tuubaa di daje ngir xett ngir dox ak bokk di feddali ak bokk muy nekk lu am solo lool islaam santaane bu baax a baax kon nag léegi bu yàlla dogalee ñu am mbooloo mu tënku ci loolu di ko def euh, mu mel ni ñëpp kenn ku nekk jàpp nga si bopp la kenn ku ne def ko bopp kon loolu dañ ci sant yàlla baax te xam ne nii mu doxee nit sëñ bee joxe ndigal lu mu doxee ko nii maanaam sëñ Abdourahmane bu ñang mi ak sëñ Fallu bu soom sëñ Abdou Khadija damañ sëñ Muntaxa di ko waxee waaye la mu joxe dum ndigal mooy lu muy waxoon rek bu ñu dajee daal ma nu mu a yaraaxee na gën kon nag nuñ def nii mu dajee kon moo ko moo ko taamoo noonu kon ndigal sëñ bi lañ ci taamu kon yaa ngi ci dajeeg ndi ngërëmu sëñ Tuuba te yaakaar nañ ko ci baax a baax itam kon dañuy sant ñëpp rek di baalu ak ñëpp di baal ak ñëpp te séentuwaat incha allah bu ñu ci rek ni yàlla dogal lépp dañ mbas yeeg jafe yëpp dañ bañ defee ko ko bëgg defee ba lépp luñ ci yéene yàlla yéen di rajo sëñ Tuuba kon daal sant ñu ngi sant ñëpp di baalu ak ñëpp di baal ak ñëpp wasalaam mbokk yi sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu di leen nuyoo ci li lislaam santaane ku koy nuyoo ab julit te mooy nga ne ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nee na mi ngi jiital ci nuyoo bi nag Cheikh Mouhamadul Mountakha mi ngi ne xam ne moo fi nekkal Serigne Touba te nekkalam gi mu ko fi nekkal nekkal gu rafet nee na mi ngi koy ñaanal mu yàgg koo nekkal te ñu yàgg ànd ak moom ci liggéey bi nga xam ne moom la liggéeyal Serigne Touba tam am ci ndam loo xam ne kenn mosu ko ci am. nee na mi ngi nuyu di siyaare Cheikh Abdoulahi yàlla yàllaay buur mi nga xam ne moo fi nekkal sëñ maam Mor maam Soxna Jaara di ko ñaanal lim ñaanal sëñ Mouhamadou Mountakha nee na mi ngi nuyu rakkam yi nga xam ne ñoom la bokkal sëñ Mbusoobe tam fekk leen ci jotaay bi nee na mi ngi nuyu rakkam yi nga xam ne ñoom la bokkal sëñ Saa so te nekk ci jotaay bi ñi nekk ci jotaay bi ak ñi fi nekkul ñëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu ci tur nga xam ne mooy turu suñu borom. nee na mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan lépp loo xam ne ñaanal nañ ko fi sëñ Mbuso bi ak sëñ Saa ak mboolem mbokk yi nga xam ne ay seenu njaboot lañ ñoo xam jiitu nañ wala ñi ngi seen gannaaw nee na mi ngi leen di ñaanal barkeb alxuraan ak xasaayid ak tur yàlla yi fi jàng yëpp yàlla nañ ci yàlla jotale. nee na yàlla na yàlla jotale lool lawal ko ci mbooleem ñi ñu ci barab bi ak fépp foo xam ne denc nañ fa ab julit nee na taxawaay gi nga xam ne taxawu ngeen ko nga xam ne lépp moom ngeen ko defal ndax ginnaaw yàlla rus gi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa rusoon moom la yàlla rusoon sëñ bu soobe nee na gëm na ne rus googee moom la suñ borom lawal ci moom ba yàlla bàyyi ko fi ba fi mu nekk nii ba man am kattan mën a jóge fu sori ñëw fekk jotaay bii. nee na yéen a nga wax ne yéen a ko yërëm ci coono bi waaye moom day xam na ne sëñ bu soobe lépp lu ñu yëngal tam jëm ci moom lum sori sori sori ak lum naaj naaj tàng. nee na jaral na ko mu sol aw dàllam fekk leen foofa ba fa ngeen di jëf mu ànd ak ci yéen ànd ak yéen ca jëf ja su nga nappe mu ne leen jar jërë ngeen jëf ndax gis na ne ak yëg na ne ak gëm na ne rus gu sëñ Tuubaa soon suñ Bousso bi rek moom la ko fi bàyyee ndax nii suñ sëñ Abdoulaye wax ba suñ Tuubaa di joxew turam daf ne nañ ko tuddee sama nijaay nee na kon la nga xam ne moom la suñ borom mayoon suñ Bousso bi moom la tax mu bàyyi ko fi ngir mu eggaleel ko ab liggéeyam kon yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu gën a eggale liggéeyam ñi nga xam ne ñoo taxaw ngir lëkkale njaboot ak Mboussobé gépp te sëriñ alaaji Bousso ña nga nekk seen kanam ñiy jëf-jëf ju baax joo xam ne nii lañ ca jublu mooy e, yaatal lawtan ak Mboussobé bu ñu waxee lawtan ak Mboussobé nag bu ñu tuddee ñaari maam yooyu di suñ Mboussobé ak suñ saa Bousso am na ay sët ñoo xam ne ñii Mbàkke lañ sant ñii sant Faal ñii sant na ñang ñii sant neneen kon lépp ci lawtan ak Mboussobé gi la kon ñooñee ñëpp nee na Baye Sëriñ nee na mi ngi leen di sant saa yuñ dajee buñ teewee ak bu teewul yëpp na ngeen xam ne mi ngi seen kanam mi ngi seen gannaaw te mi ngi leen di déglu ci lépp lu ngeen yëngatu ngir yàlla ak ñaari maam yooyee mi ngi koy bàyyi xel te mi ngi koy dégg nee na ngi leen di ñaanal bu baax ngeen yàgg a taxaw taxawaay boobu te lépp lu ngeen ci jëf yàlla ko yàlla nangu nee na sant na bu baax gërëm na leen nee na bis bi itam yéen a nurul woyof waaye nee na moom woyoful ko nee na xàmmewu ko bis yi nga xam ne moom lañ daan woote daan ko daje ca penc mbusoobe ba ndax la suñ Musaa Ka waxoon ne lu jëg ngir rasulullahi baatin ba saf xorom moom noonu la jàppee suñ mbusoo bi lépp lu ñu wootal suñ mbusoo bi rek nee na ci gis wayafaay ba du ci gis xeebaay ba nee na gis na ne jàpp ne ko comme nañ ko jàppee woon nañ ko daan wootee ca fas na yéene itam fu ñu ko mën wootee nee na yàlla ñu ko fekk ak déwén ak jàmm nee na bañ teg ko nañ ko daan teg wala nu ko raw incha allah fas na ci yéen a yéen fas nañ fas yéen a cee teew kon nag nee na sant na bu baax fi nga xam ne moom lañ doon jàng alxuraan ji ak sëñ suñ mbokk mi nga xam ne mm, ca daaram la ko doon jànge lépp sëñ bi yëg na ko nee na yàlla na ko yàlla nangu nee na it mi leen di eh, delloo ngeen bu baax tey fàttaliku suñ ñaari maam yooye lu tax seeni tur des fi ba léegi lu tax seen jëm wala seen jëm nekkatu fi waaye seen i tur ak seen i jëf ñi ngi koy fàttaliku nee na dañuy tax saxoon ci jub saxoon ci jaamu yàlla doonoon ñu jàng ba am xam-xam nangoo toppatoo ak mbokk nee na leen di fàttaliku loo su ñaari maam yooyee nee nañ ñu maloon ba tax ñi leen di fàttaliku ba fi mu nekk ni nee na ngeen sax ca loola ca bañ cee jóg ba mukk nee na ko defee yéen it képp ku fi jógee say sët wala say doom danañ daje ci barab di la fàttaliku kon nag nee na mi ngi leen di fàttaliko ñaari maam yooye ca la xam ne moom lañ meloon doonoon ay taalibe sëñ Touba yoo xam ne doonte ay kilifaam lañ ci wet waaye bàyyi woon nañ lépp laxasaayu ànd ak sëñ Touba liggéeyal ko liggéey bu wér la ca la ca la ca firnde rek ba xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam feeñu nag sëñ Touba lam ko waxoon amul am na koo xam ne fii mi ngi ci kaw suuf duñ duñ du seetaan mukk suñu borom di teg ci aw teg ci yow nattu te bu ñaanee suñ borom dana ko nangu loolu nag liggéeyal na liggéey liggéey na lislaam liggéey bu rëy waaye liggéey la sëñ Touba liggéey bu rëy kon nag nee na nañ bàyyi xel ci suñ maam yooyee ci seen wax ak seen jëf nee na mi ngi ñaanal bu baax ñi nga xam ne ñoo laxasaay di liggéey suñ Bousso bi nee na ma ngi koy tàmbalee ca barabu naawel ba sëñ Idrissa Ndiaye jëfal na fa maam astawaalo jëf joo xam ne ñun ñëpp amoon nañ ko njukkal kan nag fuñ daje ci barabu ci ci jotaayu suñ Bousso bi war nañ ko faa tàmbalee ñaanal bii lañ ko tàmbalee ci sëñ Abdou Salaam ba ci sëñ Ibrahima Bousso ba ci suñ bàyyi sëñ Cerno mu liggéey ci barab bi liggéey bu rafet bu bu bu mat bu yaatu nee na ba mu yàlla dogal mu ñëw ci ay loxoom mi ngi ci di ñaan ñun ñëpp ñu ànd na ca moom ba yàlla eggale ko nam yellool ak suñ bu soobee nee na Abou Sall mi nga xam ne moo laxasaay ngir ne ko fas naa ko yéen a eggale it bàyyi sëriñ nee mi ngi koy ñaanal mu am kattanu man koo eggale ba moom itam lépp lu mu duggati ngir yàlla ak jëmi suñ bu soobee yàlla na ko yàlla eggaleel ngi leen di sant bu baax di leen gërëm jotaay bi xaw naa xaw naa xaw naa yàgg tey waajeelu wuñ ko woon waaju yendu waaye nee na sant na bu baax gërëm na leen kaddu yi la waxoon ne ko jaarale ci turu sëñ Omar Bousso mi nga xam ne moo fi jëwrinam sëñ Omar jox ma ne naa ko jottali xam naa lu ci gàtt ak lu ci tilim ak lu ci lépp sama làmmiñ la waaye ñu ngi leen di jégalu bu baax ci li waroon a mat lu ñu waroon wax ci waxuñ ko ak lu ñu wax ci waruñ ko woon wax ñu ngi leen di jégalu bu baax ci kàddu sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yàlla nañu ko teewaat déwén wasalaamaaleykum jërëjëf ne ñooy seetaan suñu site internet bi 24actu lii mooy bis bi nga xam ne moom lañ ñëwoon fii ci Mbàkke Bawal ci armali bu soobee yi ñu leen ko waxee ci kaddu yi nga xam ne jàll na fi yëpp bi ñu xëyee ba léegi jàng nañ fa alquran ñaar fukki kaamil ak ñaar ak ay xasida ak ay salaatu ala nabi da ngeen kaddu yi nga xam ne ay kaddu yu soññee ay kaddu yu ndénkaan ak yu mot li nga xam ne moom la sëriñ bi ak mbokk yi fi nekk yëpp yëkkati kon ñu xam ne barab bi daal barabu ñaanu waay la barabu sàkk waay la barabu lu mu doon lu mu doon lu mu kon nañ ko daan defee ba ni yëpp rek agsi nañ fi nga xam ne fi la jotaay bi jeexe su ko defee dañuy tàllal sëriñ bi ñaan su ko defee mbooloo mépp mën andoo àndoo dem ci barab bi siyaare sëriñ bu soobee ak waa Mor Diarra su ko defee ñu ñaan yeewi ko ba déwén kon ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant waa 24 actu techniciens yi ñu àndal yëpp ak Thierno ak yokk ko ba fi ngeen bëgg a bi ngeen maase teewlu sëriñ bi ñaan ñëpp maase àndoo dem ci barab ba ziyaare sëñ mu ne ñëpp tàllal loxo ca fas liñ bëgg lépp xam ni tuuti laa bu leen yéem mbër mu nëbboo nëbbu la jàpp zahiram nabe ko baatinam du siiwal ay mbiram du dox di wootee ke gëroo ba muy xelal la teel a man iqaama du faale xar baax karaama naka mu jog soobu ci listiqaama sàmmoog ragal yàlla te dëddu duniyaa moo di donoom musula jëf yu bon yaa su joodi julli moo tax jëm bëdër ba ga jolle jàngal na waa këram ba kenn du jàng seng këram defar na jàkkay seng dem jàkka jaako taxa nooj duute musula fay faat musula tiim di woote aji na màkkata ajaale doomam jutu du mawlaaya sharifun alim du denc ay dërëm walay diinaaru du yeewi naari góor wataam du gaaru adiisi yonnan ak du rus xuraana moo di waxam ak xamle mbooti maana